ay ci di jëfal ñëpp ñi nga xam ne waxtu wi ñoo ngi seetaan digga bor la ñu ko def wóorul ne woon naa leen nooy dundee sa koor dinaa dem seeti képp koo xam ne artiste nga wala célébrité wala nga nekk ndaanaan wala nga nekk tubaarkàlla macha allah dañ laa xamaa fii ci nga xam ne nii moom mooy la Dental TV digga bor la ñàkk koo def wóorul tey nag ma ndaanaan ndaanaan boo xam ne yaakaar naa kenn du ko présenté nee naa leen kéwél di tëb doom jëbët tey nag ma seet si El Hadj Ndiaye di doom ci Doudou macha allah ah, nag lii ñi ko nit ñi di gis bariwut nee naa man maay dem ah, lokkati képp koo xam ne rek ah, yaa ngi toog toog sa rukk man dinaa la ñëw waxta fas yéene génnee waxtaan ak yow waxtaan ak yow waxtaan ak yow lu baree baree bare tey nag bu ñu nee El Hadj Ndiaye El Hadj nag euh, boo leen ko déggee ngeen xam ne projet yi ci yu mu nekk bari na lool. aja El Hadj maa ngi lay waaw Baba maa ngi lay fay vraiment di rafetlu seen teewaay yéen waa Jantal TV euh, di leen wax vraiment soyez les bienvenus et puis euh, di leen ñaanal aussi seen site bi yokk. ba jëm ba ci kanam a kanam kanam ba nekk télévision donc euh, kontaan naa nag ci recevoir de sama kër euh, di pare nag lool pour répondre seeni question ak lu munti demee toog di leen déglu nag ko ayca El Hadj Ndiaye bu ñu nee El Hadj Ndiaye yaakaar naa kenn du ko présenté ndax euh, Doudou Ndiaye Coumba Rose mooy sa baay rek yaakaar naa doy na carte d'identité ci réew. ayca El Hadj Ndiaye El fan la fan la nekk exact parce que ñun li ñuy gis El Hadj Ndiaye bariwut. waaw cest a dire que son papa dafa jël doomam yëpp utal leen euh, fu mu leen teg bi mu fi nekkee euh, ñii mu yóbbu leen Sorano ñii mu yóbbu leen Moudoura d'Afrique man mu yóbbu ma orchestre national euh, de 82 à 92 ma nekk fa ba ma fa nekkee aussi en tant que musicien di tëggal ak ñoom Kinélam Kinélam cassette yi mu doon joué yëpp te mu cartonné man maa ko man maa ko joué. ak euh, yeneen orchestre ay ñoom Dial Mbaye Maxu Lebu gi euh, kasitam boobu mu def ndëppali man maa ko tëgg donc bi ma toogee ba quatre vingt quinze quelque chose comme sa ma ni boo ok bon sam papa bien vrai que da doon def tournée di ànd ak famille bi et tout ça mais man mosuma bëgg ànd ak moom loo bëggoon def sama yoon jël sama yoonu boppu quoi. ayca liñ lay gis ak moom bariwul euh, tey euh, El Hadj euh, fan la basé wu exact yaa ngi basé wu fi nga xam ne ni au niveau de Belgique wala yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi diggante Belgique ak Sénégal. waaw normalement damaa doon ak suñu papa benn tournée inauguration du Louvre en France. pra Mitterrand moo ko doon inauguré bi ñu ba foofu bon man ko man dama bëggoon dem Suisse ak Italie. pour euh, def quelques travail yi ma waroon def mu ne ma ok amul benn problème mooy ma toog Paris un mois mu benn artiste bu ma dégg Paris bu nekk Belgique ne ma dama bëggoon liggéey ak yow loolu moo ma dugal sax Belgique léegi ma dem Belgique c'était en 95 bi ma fa nekkee bon dama fa demoon pour liggéey ak moom pour un laps de temps mais après moom gis fa yeneen yeneen bunt loolu moo indi sama toogaay Belgique bi ma toogee Belgique nag ubbi bi ma foobee école ba yàgg festival yi di ma contacter pour concert ma indi samay doom parce que samay doom aussi ay percussionniste lañu ay musiciens lañu indi suma jabar ñu basé fa Anvers. Euh, bala ngaa dem Belgique euh, euh, yaakaar naa am na am na loo def Sorano. ah si bi ma fi nekkee musicien laa woon nag doon naa ànd ak paa di jouer ji mais man sama liggéey c'était jouer ak musiciens yi quoi. basé wu si en quatre vingt ci ay base yu claire quoi cest dire que si ay contrat quoi parce que mosuma bëgg a def illégal quoi dama bëggoon nekk en nga euh, nekk ci condition yu condition yu yu yu yu meilleur quoi donc loolu moo indi Belgique bon ma indi samay samay doom aussi si si même condition yi mayleen kayit donc ba léegi ñoom ñëpp nationalité la ñu yor donc euh, loolu mooy di loolu mais chaque année damay ñëw vacances. chaque année damay ñëw vacances waaw. ca euh, bu ñu nee tey euh, Doudou Ndiaye Coumba Rose ñun ñi nga xam ne tey jii xamuñu dañ koy gis. mais lu baree baree bare ay secret yu bari mu ngi ci Doudou Ndiaye Coumba Rose ci jàmbaar gi ci xare gi ci ki nga xam ne nii jël na ay doomam yëpp teg leen ci ay conditions yu baax ba tey ji ku nekk yaa ngi demal sa bopp suñ bëggoon xam kan mooy Doudou Ndiaye Coumba Rose exact waaw kooku euh, mën nga wax ak ci moom pendant un mois du jeex parce que man parti particulièrement am naa chance su toog ak moom di waxtaan ak moom di ko poser ay questions donc mu may xamal lu bëree bëree bëri bëri mais moom dafa nekkoon papa boo xam ni dafa jàngal ay doomam alxuraan jàngal leen école parce que léeg ma gis télévision yi ñu jël invité benn benn géwél naa ko réciter ñu hymne national wala làkk làkkal ñu français muy dem ay wax di wax du kenn xamul ko mais ñun on a eu la chance avoir un papa qui nous a appris à aller à l'école le Coran ba pare jàngal nu ni ñuy saisir lettre ba pare wax ñu booy euh, signer contrat booy liir contrat xam nga données yëpp danga koy xam donc moom daf ñu jàngal àddina ba pare jàngal nu euh, per liggéey moom moon jàngal liggéey quand même mais moom dafa nekkoon nit koo xam ni. bu nu musaana tëggi fenn sax daf nu daan wax nenu boo leen tëggee ba pare bu leen fa jógee te séddalewu séddalewu leen xaalis bi parce que am na un baaba boo xam ni bu déggee ni du njaaro dafay tëgg sabar fii ci koñ bi day ñëw parce que du am du am reer guddi googu wala doom yi amuñu lu ndekkee day ñëw toog ba sabar gi jeex mu ñëw taxaw boo taalee sa oto dem dèjà yaakaaram day tas nee na bu fi ngeen taxaw ni ngeen fa séddale xaalis ba ku ci bokk ku ci bokkul jox leen ñoom ñëpp ndax ku nekk am loo reeree déjà benn deuxième bi moom mooy bu leen tëggaloo kenn ci ñàkkam ba pare doo leen ko jox àqu àq bi même dafa valable ci yéen ñi liggéey ci euh, ci télévision yeeg ci rajo yeeg yooyu normalement bu leen liggéey dañu war a jox seen gëdd maanaam fay leen li ngeen liggéey pas ñu leen fay ay ay ay miettes quoi donc moom dafa ñuy yar ci loolu ba nga xam ni ku ñu liggéeyal ku ñëw liggéey ak ñu dañ lay fay normal danga lay fay yow ba nga tiit moo tax sama papa bu musaana woo ay cent batteur bu fayee yeneen tëggkat yi nga xam ne daf leen jël ailleurs dañuy tiit parce que dañ leen yoo xam ni mosuñu leen ko fay donc moom nit la koo xam ni ku ragaloon yàlla la ku jàngoon alxuraan la et puis ci biir tëgg mi mu doon tëgg dafa doon waxtaan ak ñun tey jii par exemple tey boo duggoon tey ci géewu sabaram euh, xaw a xaw a màndi wala ngay naankat wala ngay tox kat ci biir tëgg mi ma lay tëggal du du la ko wax yow mais ñun dinañu tëggal ci biir tëgg mi. moom daal tëggam day wax. day wax dafa naan dafay dafa ñuy tëgg ci biir tëgg mi nenu kii kat baaba mi kat tey dafa màndi tey baaba mi tey dafay naan xam nga baaba wax ñu ko ci biir tëgg mi mais tëgg mi du arrêté dañuy continuer day waxtaan ak ñun di dialogue ak ñun di wax ak ñun ba pare balaa ñoo tëgg xamal nañu ni war nga aar ñi fa nekk ñëpp day jël ci biir sabar gi. lay aar aar ñun ba pare aar ña fa nekk ba nga xam ni borom bët yi bon yeeg dëmm yeeg yooyu yëpp danañ léem léemu ci sabar gi donc moom li mu li nekkoon secret bi nekkoon ci moom dafa bëri te ñun am nañu chance nekk ci moom mu jur ñu ba pare daal di ñuy wan lu bëri. Euh, lan moo la gën a marqué au niveau euh, au niveau au niveau Europe euh, Doudou Ndiaye Coumba Rose ànd ngeen ci walla nga mu def yow mu marqué la El waaw il était un batteur de sabar xam nga batteur sabar dañ ko tegoon rek kuy tëgg ngénte et tout sa mais moom dafa nekkoon batteur de sabar plus moderne parce que bu musaana par exemple tey jii euh, bicentenaire de la de la révolution française dañ ko def cent ans ba cent ans moo ñu tuddee ko bicentenaire de la révolution française le 14 juillet 1989 dañ ko yónnee musique bi dañ ko doon doon wër waa France di wër ku leen accompagner musique bi amuñu ko ñu wër ci monde bi yëpp amuñu ku ko mën a accompagner ñu woo ko téléphone boobu ñu ngi dëkk Médina rue 1 ñu woo ko téléphone ne ko mais Doudou on a un problème dana amoon benn musique bu ñuy def ci 14 juillet bi te amuñu wër nañu mun ne leen yónnee leen ma ko boobu téléphone fixe yi moom ah. amagul téléphone yi mu leen del yónnee leen ma bi ci téléphone gars yi tegal ko musique bi ci téléphone yeggul sox mu ne leen arrêté sa c'est comme de l'eau à boire. tubaab bi ne ko non non mais Doudou on on blague pas quand même mu ne leen non déglu naa ko ci lañ ko yónnee cassette bi yónnee ko cassette bi ñu répété ci kër ga mais jour boobu dafa impressionné tubaab yi français yi ak jazzman yi nga xam ni tous les grands musiciens Peter Gabriel jazzman yi américains yi. bu nu musaana ñëw fii jaaxal nit ñi dañuy woo du Ndiaye Rose ak sa sabari yi. ñu gis tamit li muy liggéey ak nasaraan yi euh, bari nañu euh, tey yow El euh, lan nga nga fas yéene liggéey au niveau de Belgique ak nasaraan yi yaa ngi liggéey ak ñoom li jëm ci wàllu tëgg wala li sa papa daan def foofu. waaw parce que avant ma fiy jóge moom dafa jaaroon école des arts jàng solfège loolu moo ko dafa bëri ay affaire moom jàng solfège léegi bi muy jafee loolu. Eh, am na yeneen géwél yi nekkoon ci dëkk bi naan Dunja ñu naan Dunja Rose dafa commencé naan dafay def solfège sabar yi il est fou directeur conservatoire moo ma nettali lii ne ma yeneen géwél dañu wax paa bi il est naka la mën a solfège sabar ma koy solfège moom ci boppam donc moom dafa jàngoon musique ba nga xam ne dina mën a waxtaan ak tubaab yi ci biir musique c'était un musicien donc ñun ñu am chance mu jàngal ñu ci loolu parce que bu nu musaan def festival de jazz. day jékki-jékki ñëw ci kenn ne ko yow bul prononcé dafal soupir dafal jamet man boobu xaw ma loolu man ni sama benn grand frère mais kii yow paa wax nii non yow xamoo kii sax kii ngand la naa ma soupir ak jamet xaw ma lu muy wax. bi ma demee orchestre national nag di jàng musique ci laa xam yooyu mu doon wax yëpp boobu je savais pas donc moom c'était un xam nga génie la woon ko waaw génie woon ba léegi ñun bi ñuy tubaab bi daa ñëw ci kër ga mu leen jàngal dama jékki-jékki leen dañuy def leçon de six leçon de dix tout ça ma ne bi lan lay wax nii mu non pire sabar ñi booy jàngale musique da nga koy jàngal métronome mooy le temps jàngal ko leçon de six leçon de dix ma ñëw toog ci wetam muy jàngale tubaab bi di jàng di comprendre mu naan leen da ngay teg teg sa loxo nga pincé nga def la claque jël ay not génne ko tubaab bi di ko comprendre. donc ñun bu ñu génnee doom yi ah doom am na doom yi nekk Amérique ñu nekk Hollande ñu nekk France ñoom ñëpp c'est des professeurs duye nag ñi nga xam ne mën nañu werante ak ak un professeur de musique donc paa bi mënu koo jàngal à la base ba nga xam ni man tey ji du ma fecc ah, du ma fecc damay joxe cours tubaab bi may joxe cours c'est des professeurs ay banquiers ay ay professeurs de musique. au niveau de Belgique ak partout personnel damay def estage États-Unis euh, Canada Hollande France damay def ay stage yu bëree bëri bëri bëri bëri di joxe cours du lundi au vendredi donc euh, Belgique rek amoon naa fa cent élèves yoo xam ni man maa leen di jàngal. ay nasaraan saa yu ñu wàccee 6 heures ñu commencé jàng. maa leen jàngal ay patron lañu doon bëccëg gi ñu dem liggéey donc euh, loolu paa bi doon def moom laay def man. moom laay def ba pare festival yi nekk foofu yëpp dama am groupe bu moo la bu ma laajee cinquante personnes damay dugg biir France seet sama frère yi nekk foofu Hollande léeg-léeg bu matul ma jël ci fii Sénégal. yóbbu leen ñu dem defi concert yi dellu soir comme pas bi. ay ca mbokk internet bi ma leen fàttali rek maa ngi ak El Ndiaye euh, doomu Doudou Ndiaye Coumba Rose xam nga euh, ndeysaan euh, kéwel du tëb doom ja bët li ci sunu maam Doudou Ndiaye Coumba Rose yëpp yaakaar naa moo ngi koy expliqué. ay ca El Hadj bu ñu ñëwee tuuti ci citoyen mouvement citoyen Dakar Rose mouvement fan la jóge waaw mouvement bi dama ñëw Dakar doon waxtaan ak ay nit. ci lu jëm ci lu ñu mën a def ba aider la jeunesse sénégalaise bi ñu ma waxee loolu ma delluwaat Belgique dem Anvers la ville d'Anvers ak association sénégalais yi nekk fa bu tudd Jokkoo nga xam ni benn sénégalais bu bu xarañ sax bu ñëw Ousmane Ndiaye moom mooy président bi donc ba ma si waxtaan ak ñoom mu ne ma naa la booleeg ville d'Anvers ñu accompagner la ma dem ci ville d'Anvers ñu xamal ma ni ma bu fekkee da nga bëgg aider la jeunesse. bu sa quartier ma leen man maa ngi dëkk grande Dakar ñu ne ma léegi mën nañ la dimbali defal la comme Europe nga jël jeunesse bi comme ñun Europe fii euh, ñi liggéeyu dañ leen di fay chômage jeunesse bi nga xam ni euh, amuñu métier defal leen formation di fay chômage bu seen formation jeexee ñu wutal leen liggéey mun nañ la aider ci loolu ci Covid bi sax ñoom ñoom ak association Jokko ak euh, président Ousmane Ndiaye yónnee nañ ma ay ay masques. ay gel euh, bagage yu bari yu jëm ci affaire Covid bi ba pare yónnee ma xaalis bu bëri ne ma aideel xale yi donc man sama ginnaaw dafa am euh, ville d'enfance bu nekk sama ginnaaw bootu sama ginnaaw quoi donc pour jàppale ma financièrement matériellement ak association Jokko bu ne foofu nga xam ni suma suñu compatriote boobu Ousmane Ndiaye moo ko moo ko jiite ak ñoom Matar Seck euh, sénégalais yu. yu am bopp daal. gis nañu gis nañu ñaari mouvement euh, bu ñu nee mouvement euh, citoyen Dakar Rose ñu gisaat mouvement L production Rose. L L Rose production euh, ñaar ñaari mouvement yooyu nan nga koy gérer. waaw ah, benn bi mouvement la pour aider la jeunesse de Grand Dakar bon boo gisee mouvement am na lu ne si suuf lu ñu waxul mais loolu bu jotee dañ koy wax ci mouvement bi donc ñu ngi def ñu ngi former jeunes yi def ay te euh, def ay ay débat ak yooyu quoi donc Aine Rose production boo ko déggee c'est pour la production dama def ay production internationale c'est-à-dire ay concert ay événement euh, dañu bëgg a indi fi matériel boo xam ni matériel bu sophistiqué boo xam ni pour événement wu ay show la ay concert ba pare nag ubbi fi école boo xam ni day jàngale donc am na paa bi amoon na benn projet boo xam ni académie la woon pour def ko euh, euh, fii ci Sénégal di indi ay tubaab ñu ñëw di fa jàng si muy académie boobu malheureusement euh, jotu ko yeggali donc man maa ngi ci tànk yooyu bu def loolu loolu moo indi Indros production boobu dafa am ay matériel sonorisation di fournir musiciens yi ay matériel ba pare di produire les les jeunes artistes. Euh, tey euh, El li ñuy li nga wax fii ci ay projets yëpp macha allah euh, est-ce que tey yaa ngi am ku lay ku lay ku taxaw di la jàppale ci financement parce que tey bu ñu nee Médina artistes yaa ngi fa. tey ndaanaan yëpp ñoo ngi Médina tey ku mel ni doomu doom du Coumba Rose même bu fekkee sax miinu fa tey bu ñu la nee waa Fane dañ naan la waa Médina tey est-ce que tey waa Médina responsable yi fa nekk tey ñoom ñoo ngi taxaw ci sa programme bu baax a baax. waaw c'est-à-dire que man je la Médina. gis nga bu buñ tojoon Medina sax mën naa ko tabaxaat comme nu mu meloon parce que foofu laa juddoo fa laa defee primaire dafa secondaire ñu fubal fa nawetaan dafa fubal koñ donc miin naa Medina xam naa ko maitriser naa Medina lool sax mais responsable yi donc euh, amul kenn ku ku ñëw à l'aide. ci mel ni Bamba Fall bi. bon Bamba Fall day mm-hmm. wax ci moom parce que jotoon naa wax wax ci moom tuuti. Euh, bëggatuma wax ci moom donc euh, yaa Cheikh ba kii la ba. lan mooy sa problème entre yaak ba Fall. non amuñu problème c'est-à-dire que ma dama bëggoon mu xam ni rek ñun kenn mënul tudd Medina bàyyi ñu parce que dama ko jox exemple moom en tant que politicien dafa am benn année damay jël e-, damay jël témoin Abdoulaye Diop Matar grand sëriñ de Dakar il était un jeune socialiste donc euh, Lamine Diack di xëccoo ak Bourgi bur ji bëri doole lool sax ñëw seet sam pap Medina mais sam pap ak Lamine Diack ñoo bokkoon école Lamine Diack bii tey yii yaa nga ko yàlla delloo siwaat ci njabootam parce que ñun ay doomu jaraaf la sam pap ñun ay jaraaf maan lañu mais tey ku mel ni El Hadj El Hadj Ndiaye doomu Dour Ndiaye Coumba kenn du ko présenté Bamba Fall nekk foofu noonu noonu maire Medina tey waroon ngeen am benn link tey tey tey en tant que artiste euh, Bamba Fall waroon naa ñëw envers yow ngeen waxtaan xool nan ngeen di jàppale biir Medina jàppale jeunes ya fa nekk affaire yooyu noonu. waaw mais moom dafa amoon nañ relation par relation dem leen teg dikkalante xamante woon nañu nii comme sax mais ñun du ñu ay ñuy dem ci bureau yeeg xam nga dem ci commune yeeg taxawaaloo yeeg. di wax nit ñi ñuy ree wala ñu lay kafal ngay ree dama lay nettali benn anecdote Lamine Diack doon xëccoo dak ndakaaru ak Bourgi Bourgi am doole lool xam nga Bourgi mm-hmm. ñoo ramees Bourgi yooyu naar yooyu mais Bourgi ñëw na si kër ga kër fa la fekk ma toog pour wax paa bi pour paa bi jàppale ko paa bi ne ko Lamine Diack laay jàppale keroog sama papa moo tëggal Lamine Diack ba Lamine Diack gañe ko élection donc ñun ay gagneur lañu c'est que Bamba Fall dafa xamul mais après lay comprendre donc dafay damay gis muy tudd les artistes de la Médina te tudd suñu waa kër soxlawuñu kon tudd ah ñun ay baj géwél ah, kon yow hélas mën nañu dafa am loo jàppal euh, euh, kii loo jàppal maire. non so bëgg ma may ma xaalis soxlaw ñaanu ma ko xaalis soxlaw ma xaalis mais dama bëgg mu xam ñu ñooy ñan. bu ko xamul moom ñu dem. ci gàttal daal euh, cër bi nga xam ne Bamba Fall war na koo jox waa kër Doudou Ndiaye Coumba Rose ñu nekk Medina defu ko. Euh, parce que tey munoo munoo munoo munoo nekk maire euh, tudd tudd tudd tudd ay ndaanaan yi mag yi nekk biir Medina sans autant que nga dugg waa kër Doudou Ndiaye Coumba voilà loolu rek moo tax amul leneen. nanu teg jox suñu cër. bien vrai que tuddee noonu place tuddee na bàyyi benn place c'est bien mais nag bu ko tuddeewul woon sax. nañ ko tuddee leneen parce que paa bi moo liggéey loolu ci biir Medina mais nag nañu jox suñu cër ñaanuñu ko waaye nañu ko demuñu këram man xaw ma fu mu dëkk bien xam nga du ma ñëw ci mairie ba du ma fa dem ca mairie ba demandé wu ma aide ci mairie ba rafet na buy tudd waa Medina tudd suñu waa kër parce que ci la ñu bokk. DG Cheikh Tidiane Ba tamit moo ngi foofu ca Medina. ma nga fa xamante wuñu mais mu ngi def ay yu mais hélas nag yow mun nañuy responsable mu tudd biir Medina yëpp nga ne xamoo leen yow est-ce que nekkul tamit yaa toog sa rukk bañ nga bañ ko nga bañ koo fekk ji wala nga bëgg ñu ne hélas dugg na fi wala hélas seeti na diw man daal li ma gis papa da nga xaw a rëy tuuti. non non pourtant rëyu ma c'est-à-dire que euh, Cheikh Ba ma ngi fi am na ñeneen ñu dul Cheikh Ba am na ñu soxla Medina ay boy Medina yoo xam ne ñun ñoo fubalandoo nawetaan fubalandoo match koñ jàngandoo école parce que man maa ngi jàngee école Clémenceau ñun presque waa Medina yëpp. fa la ñu jàngee ñun nag waa kusum waa xandaalu xamante nanu ñun waa espace la ñu. yaa ngi seeti jaan ba xamante wala. non xamante woon sérieusement. mosu Bamba Fall amoo benn relation. non Bamba Fall xamante nanu parce que organisé woon naa fi bi. Euh, mais da ngeen a jubóowul. non xuloowuñu xuloowuñu dama gis ni joxuñu li ñu moom donc moo génn wax ko ayul ah. mais taxul ma dem këram wala ma dem ca biir commune ba demander ko audience wala quelque comme ça. xam nga bon Cheikh ba xamante wuñu yàlla xam na ni musuma dem këram xaw ma fu mu dëkk. Mhm. musuñu toog ma ak moom mais gis naa ni ma ngi liggéey Medina tey jàppale ko bu jotoon da nga koy jàppale. Mhm. c'est très clair donc comme moom euh, Macky Sall moo ko tax a moo ko moo ko moo ko tax a jóg. Mhm. boo koy jàppale da nga koy jàppale. mais Bamba Fall c'était c'était un socialiste. dafa dafa xam nga mooy loolu. mais bokkul APR mu ngi noonu dafa tranché. Euh, yow daal euh, politique bi euh, da nga cee da nga cee da nga cof. cofu ñu ci cofu ma ko parce que ñoom li ñu bëgg moom laa bëgg parce que mouvement bi loolu moo ko waral ñoom li ñu bëgg moom laa bëgg cofu ma ko moom. parce que boo gisee mouvement citoyen Dakar Rose c'est pas pour pour rien mouvement la mais mouvement bi am na fu mu jëm am na fu mu teg bëtam bu jotee rek dina génn mu ngi noonu mais dama bëgg rek ñu respecter. nit ñi quoi jox leen li ñu moom jox leen seen cër loolu kese la. Euh, tey booy wax euh, tey euh, lu ci mel ni Vieux Seng Seng suñu papa ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare aljana tey ban lii relation ngeen amoon. waaw mais sama papa la boo gisee moom ni mu demee ak ni sama papa demee képp kuy doomu Vieux Seng wala ngay doomu Doudou Ndiaye Rose rek war nga mën a jàppante te xam ni c'est pas pour rien que ñu demee noonu nii ñoom nag ñoo xam. mais ñun doom yi war na nañoo mën a gën a jàppante voilà d'ailleurs man doomam laay sëyal doomam mooy suma jabar sama jabar ak mbay jéy fay ñoo bokk ndey ak baay sama jabar mooy seen taaw bu jigéen donc man ci famille bi laa bokk mais ñoom ñaari paa yi seen demoon ni ñu demee dafa tax ñun doom yi dañu war a jàppante et puis et puis sax ñu ngi jàppante ay gaañ lañu nag on se respecte beaucoup voilà donc amuñu benn problème lu respect waaw suñu ay frères lañu daal voilà. Euh, tey euh, tey gisoon nañu euh, deux ans ci kanam defoon nga fi benn organisation lu mel ni au niveau Belgique jëlee fi ay artistes yóbbu leen loolu dafa nekk programme boo xam ne da nga ko doon def sax at wala na la demee noonu. waaw programme boobu dafay nekk annuellement. Covid bi moo tax sax. deux ans yi amul ci Covid bi donc dama fi defoon benn événement bu ngan rendre hommage Doudou Ndiaye Rose def ko Palais des Beaux-Arts de Bruxelles Palais des Beaux-Arts de Bruxelles moo ëpp dama ko remplir ba mu fees dell yóbbu ay doomu Dundiaye Rose mooy déggee doomu Dundiaye Rose mooy bi paa bi di dund ñi nga xamee ni bàyyoo nañ ko woon ku mel ni waa xalam de xalam de ku ne xam ne leen ak paa bi sam pap bi mu am Maracas door ci France xalam ñoo génnewoon disque bi def promotion bi paa bi gañe am fa Maracas d'or déggaatoo ko fi déggaatoo fi mukk benn percussionniste bu gañe Maracas d'or il est le seul benn deuxième bi moom mooy Awadi il est le dernier venu ah moom moom mujj ñëw awa di ku ne xam na ko ak paa bi léppam du jaay Rose la. kar D responsable politique nga ci àndaloon. Bamba Ba Bamba Fall. ah seen problème sa problème yaa ak Bamba Fall maa jogewul ca Belgique ba. non jogewu fa parce que yaakaaru moon ci moom dara li ma ñaanoon defal defal naa ko hélas kat bëggoon naa teew ak waa commune bi dama buggoon ni délégation bi ñëw mu defal leen invitation ànd ak ñoom ba ambassade ba ñu bay leen visa. ñaar ñëw nañ ci ñoom ñëpp voyagé nañu gaa ñëw nañ dugg ñëw bi ñu ñëwee recevoir naa leen ñu ñëw ci théâtre bi seetaan après ñibbi ca la yem donc yaakaaruma woon ci moom dara joxuma dara it laaj ma koy dara foofu la yem donc moom ci invitation yi la bokkoon euh, Awadi ma nga foon Carlo di daf ma doon wax dama doon rêvé jouer ak paa bi malheureusement amul donc damay participer ci kii bi ñëw tëggandoo ak ñun lu mu mën a organiser day woo day invité groupe pa bi Carlodi donc Bakan Seck ma nga fa woon ba ma nga fa comme animateur ak waa 2STV El Hadj Papa Dieng nga fa comme animateur xam nga donc invité woon naa ñu bëri ñu jóge Sénégal am na benn jeune animateur bi ñuy wax Thierno Niang moom Bruxelles sax la dëkk rakku Pape Alé Niang la bu bëri talent sax booy bu fees dell ak booy boobu ma nga fa woon ma yoroon animation bi et tout ça donc damay def ay événement au niveau de Dakar ak au niveau de la Belgique. tey projet bi fan la toll euh, ban date nga bëgg def sa programme wala essant yi tànk ñoo ngi ci Covid 19 bi reculer premier sotee nga def wala. non non non parce que mënuloo organiser parce que même au niveau de l'Europe amatul événement culturel yëpp dañ ko donc bu ubbee il faut nga toog une année peut-être pour affaire yi jeex tàkk donc daal ñu ngi projet bi. dañuy xaar ba lépp dal d'ailleurs sax amoon na benn événement bu ngande bu bu amoon gore dañu bëggoon jëlee les américains les anglais les français musiciens yi indi leen Gorée compas bi fa la defee defee woon disque bu bu mujj bi ba Augustin le maire que je salue au passage jox ñu Gorée 72 euh, heures événement bi mu ngi tuddoon une lumière pour l'éternité c'est-à-dire que lampe boo xam du fay mukk ci àddina ci hommage à Doudou Ndiaye Rose mais malheureusement Covid bi moo ko bloqué mais ba léegi le projet reste Augustin daf ma woo ne ma je suis le premier partenaire parce que si télévision laay waxee ah. je mu wax bu ba pare ne ma dinaa la utal bii partenaire ak bii partenaire ak bii partenaire donc on était en cours malheureusement Covid bi ñëw donc euh, dañuy xaar ba lépp dal mais projet yëpp day continuer yëpp yëpp yëpp incha dañ koy def ci kàttanu yàlla. ay ca mbokk internet yi comme ni ma leen ko diggee woon rek euh, posté woon naa li nga xam ne nii moom mooy El Hadj di doom ci Doudou Ndiaye Coumba Rose may leen dinaa leen ko indil fii ci site internet Dental TV fas yéene waxtaan ak moom lu bëree bëri yaakaar naa leeral na ay projet leeral na loo xam ne nii euh, loolu moo nekk ci digganteem responsable politique yi nga xam ne nii ñoom ñoo ngi Medina euh, fépp waaye mën a nekk à travers le monde ñoo ngi leen di ziar di leen jaajëfal ay ca mot de la fin boo doon tàggatoo looy tàggatoo Ndiaye. waaw man balaa may tàggatoo. dama lay xamale ni la euh, dama bëgg liggéey ak yéen parce que dafa am benn album bu ñu war a génne international te bëgg naa promotion bi teg ko seen loxo xaw ma ndax yéen di ngeen pare pour loolu voilà jeex na parce que no album international la euh, daanaka sax fii taxu koo jóg parce que dañuy préparer suñu retour foofu donc euh, maa ngi profité ci occasion bi di remercier suma jabar bi nga xam ne fii fii nga ko fekk parce que bëggoon naa aussi nga jox ko kàddu aussi madame Ndiaye parce que moom cantakun la te yéen ay cantakun ngeen borom borom site bi. taal waaw Basirou Ka waaw waaw Seydina sama sama goro. donc bëggoon naa vraiment euh, et puis di euh, occasionné wu si ziar aussi sama sama goro aussi ñu koy wax euh, Serigne Saliou Thioune ndugal muy xalif général de cantakun bi nga xam ne mu ngi seey ak sama sœur ki muy seyal ak sama soxna si ñoo bokk ndey ak baay waaw c'est la famille te man ak ñoom ñoo bokk ndey mm-hmm. ñoom seen yaay ak sama yaay ñoo bokk benn baay mm-hmm. donc moom suma rakk la suma soxna la donc euh, di kontaan torop torop torop si seen ñëw fii mm-hmm. buggoon naa nag quand mu gën a yaatu mais yoon yamul ci benn. je man nee naa la instant bi lépp loo xam ne El Hadj euh, moo ngi koy def euh, ñun euh, man boo ma contacter man pare naa. <laughs> waaw man man maa bëgg man maa gën a bëgg liggéey ak yéen sur le plan national ak sur le plan international parce que ñun bu ñu paree ci bu li jeexee rek incha allahu rabi suñu projet à l'extérieur la donc on a des bonnes relations te ñu ngi koy sàmm ba léegi quoi donc kontaan nag ci yéen kontaan ci yow Baba sa caméraman bi. Bassirou Ka aussi di ko ziar xam naa ni eh, balaay ñoo wari dinañ fa ñëw setti ko def déplacement ak dérangement ñëw setti ko ziar ko parce que dégg noonu ay baax baaxam ñu ne sunu ngewel demewul noonu sunu ngewel eh, eh, <laughs> mu xumbul noonu mais mais dana ko seet vraiment respectueusement jox ko wàccaay wàccuwaayam vraiment di kontaan nag ci site bi te dinañ si jàpp nag bu baax sax parce que normalement am na benn événement bu ñuy préparer le lendemain tabaski waaw bëgguñu wax mu mu génn mais am na nañu événement bu ne bu ñuy def fii ci Dakar au Sénégal waaw dafa am samay goro yoo xam ni euh, mënu ma leen bañ a ku ci mel ni Bakane Seck Bakane Seck day seeg sama sœur ma bokk ndey ak baay bëgg naa sax après ngeen seeti ko parce que moom nit ku baax la Euh, dama am nag ay goro yoo xam ne ñu ngi nekk à l'extérieur ku ci mel ni Cheikh Ibrahima Mbaye mooy seeg Bassi Ndiaye euh, Samba Koor Ndiaye mu ngi seeg Aram Bakar waaw euh, Mamadou Diop mu ngi seeg suma beneen sœur ñoom ñëpp Amérique la nekk parce que non non mais il faut sax njëf émission sa xaw ma nag seen disponibilité dina leen ko may ñu génn dëkk bi dem Amérique parce que am naa sama benn sœur bu neex Mama Ndiaye mu ngi seeg Mamadou Diop Eh, Marème Ndiaye. Moustapha Diouf moom daanaan la. moom jëkkëram daanaan la boo xam ni. Italie la nekk. Moustapha Mbaye moom taalibe seen Cheikh Cheikh Janti Almakhtoum la. moom Moustapha mbay Almakhtoum sax la koy wooyee. Gora Sène di Seck Fat Cheikhou. Fina Ndiaye Sitax Mbaye. Eh, Abi Sène sama sœur yooyu il faut ma delloo leen jukkal daal waaw te ñoom Italie la nekk. am na ñu nekk Belgique Belgique na mu boole fa ñëwee sama dëkk la moom. mais bëggoon naa def tournée européen. tournée parce que am na projet bu ñu bëgg a def. ak benn artiste bu mag. dafa nekk en déy actuellement donc xam nga sa bopp bi war naa mën a mbalax. dama bëgg booy wax ak man sa sa bopp bi di mbalax ci temps bi. xam naa fi <laughs> nga voilà mi ngi noonu. dañu war a def benn tournée. européen ak moom. Mhm. donc bu fekkee seen disponibilité. may na leen ko. Mhm. yéen koy couvrir. incha allah waaw bu kooku il faut ñu toog ak Bassirou Ka. Uh-huh. waxtaan seeg moom. mais yow da ngay toog ci site bi moom. incha allah jeex na loolu rek la rabbi amul benn problème man nee naa je disponible tey nag damaa kontaan seet sama papa euh, waxtaan nañu lu baree baree bare ku xam El Hadj Ndiaye daaw koon dégg ci réseaux sociaux yi ku xam El Hadj xam ne nekkul lu jóg mu jóg. ku xam El Hadj xamul ni ci ay détails yi wax maa la ne yaa ma ne la wala di tontante euh, dama ko fekk ci rukk fi ma ko fekk nag man nee naa kii mooy góor gu ci rukk bi boo waxee ren balaa ngaa a ci déwén <laughs> may am mbégte contentement bu baax a baax euh, di ko seet si tournée baa ngi noonu nag fépp foo xam ne rek foofu la war a dem tournée dinaa ci ànd ak waa Dental TV au niveau national et international xaar leen ko incha allah rabbi euh, Covid 19 bi rek moo xaw a yàq tuuti mais bu jàllee tuuti rek tournage yi nga xam ne nii ñoo ngi koy wàcc ak El Hadj Ndiaye au niveau national et international dina ñëw léegi léegi ayca baabaay.